le 13 xam la ñu tere journaliste tey jëm jël dañoo dàq général sàngam Sonko ko dàq dafa doon doon xeex rebelle yi moo tax ay waxu ñàkk fu la ne la fan jëlee sa preuve nga naan benn site internet bu nekk xaw ma fan loolu jeex na ci réew mi su Sonko sàccee xaalis su Sonko reyee nit su Sonko defee naka su dul journaliste bi ci am preuve na ko bind def ko une rëy loolu c'est son droit loolu mooy liggéeyam waaye toog rek ne Sonko neexuma wala jox nañ ma xaalis wala jomaay neexuma wala ma sàmm wala demba dinaa bind lu ma neex ci moom su ma wooyee ma ne liberté de la presse presse mënul am liberté bu keneen ci ñun amul président de la république sax amul liberté boobu président de la république mi ñu fal muy le premier des sénégalais amul liberté boobu au nom de ab journaliste jàpp ni am na boobu droit mais am nañu fit la ñu doon dañ ko bindaat xaw ma defar ko lu ne dégg nañ ko fii financement bu jógee Russie Al-Qaïda MFDC lu ne dégg nañ ko fii lu ne waaye daanuñu sax dem porté plainte parce que xamoon nañ ni boo ko defee ji ñu kon nañu xam ni liberté boo gis am na limitam mooy fu liberté ak droit keneen commencé nañ koy respecté. noonu la amee ci na leneen l'impôt bi ñuy wax mais yow nee nga chaque jour nga def sa à la sa presse ne diw dafa détourné diw dafa sàcc diw rapport bi épinglé la ko yow ñu jox la nga dem say employé yi liggéey sa si yow nga leen di fay seen salaire daal ciy bàgg ne leen lii impôt la ma ko a yóbbu ci caisse état ba pare damm impôt bi sa poche lekk ko loolu détournement deniers publics te xam nga ci code pénal bi ko wax dañ leen war a poursuivre pénalement waaye yemoo ci loolu am na ñàkk jom bu tollu ñëw nag ne ma man maa sàcc waaye nag kenn du ci wax nañ ma baal ñu baal la dañu war sàccaat ne nañ ma baal ñu baal la dañu war sàccaat loolu dina jeex ci réew mi ñu yaakaar ni yor sa média mooy tax nga mën a chantage yi daan def suñ ñëwee régime bu toog ñu chantage ko di bind ci moom gars yi leen woo jox loolu jox la ci ñun suñu yoon man lu ñu bindul ci man man lu ñu bindul ci man wala suñu bind lu ma jaaxal waaye nañu xam ni nag la woon wan ñu la rek yóbboo ku nekk looy wax ak looy bind na ko seet ba mu wóor nga wax ko bind ko moo gën kon ci sori ndax yii ay dossier la xam ne dossier wu président Bassirou Diomaye Faye la mbokk yàlla jox nañu réew mi dama waxoon ni suñu sociologue yi dañoo war a jàngaat génne yeneen terme parce que man bëgguma ñu naan nguur gi nguur amu fi lu ñuy nguur amu fi fii réew mi la ñuy wax jox nañu réew mi muy loo xam ne responsabilité bu diis la président Bassirou Diomaye Faye yéen ko ci ndoddam ñun ñëpp ñu war a ànd jàppale ko nee nañu nag am na opposition Sénégal lu baax la lu baaxa baax la man démocrate laa je ne suis pas pour la réduction de l'opposition à sa plus expression man dama bëgg mu am opposition bu am doole opposition boo xam ne day ñëw di contredire mais teg ko ci xam-xam teg ko ci ay chiffres ñun niñ ko doon defee ñoom ba mu jaaxal leen ñu ne ñii il faut ñu faagagal leen ñu dañoo bëgg ñoom ñu defee ko noonu te kenn du leen faagagal kenn du leen jege ndax bu dee gis-gis ñoo leen ko ëpp bu dee xam-xam ñoo ko ëpp bu dee njub ñoo leen ko ëpp bu dee patriotisme ñoo ko ëpp kon ñu wax ba jaaxal bi ñun dañoo bëgg opposition boobu am waaye suñu moytu opposition du gaaw am de xam ngeen ndax la seetlu leen opposition Sénégal bi xam ngeen lan lañu yaakaar ñoom féewale Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko loolu mooy opposition Sénégal moo tax ma ne opposition du gaaw am ndax Bassirou Diomaye Alaaji Bassirou Diomaye Serigne Goundou ak Ousmane Sonko nit bi mën a dox ba féewale leen ki ko war a jur ki koy jur ak ki koy jur ki koy jur moo tax ñu war a dem noppalu bi ndax bu ñu xamoon wallaahi bu ñu xamoon bu ñu xamoon bu ñu xamoon dinañ dem tool yi wala ñu dem préparé wu dem defaraat seen i xalaat ñëw andi débat dige moo gën lii la ñuy essayé nag seet leen ko bu baax ñaar wala ñett wala ñetti catégorie moo ci am seet leen ñoom ñëpp ak seeni i presse bu ñu xëyee rek nga nga ci Ousmane dama ne keroog président Diomaye ma ne ko yow santal yàlla ndax yow li benn président mosul am moom nga am ma danga am fusible gars yi bu ñu xëyee rek ña nga ci Sonko te fusible ba nag dafa miin a miin ba dara jaaxalu loolu mooy sa sens kon yow demal toppatoo sa diplomatie demal toppatoo sa armée demal toppatoo sa lii ak sa lii xoolal nooy orienté mbiri te teewul nag man mi ñu jiite may chef de gouvernement dinaa gouverner de ba mu mat sëkk nag loolu mooy dëgg xolu gars yi Sonkoy Diomaye Diomaye Sonko lan la ñu dégg ba nee leen tapis bi morceau bi rek tapis bi bu gisee man wax ci sax ñu ñu tataraayu may dox ci tapis bi dinaa ko doxe doxe boobu dox na Brasil. ngeen seetloo bu bu baax ñiy wax yëpp nag ñaar ba ñetti catégorie la xam ngeen peut être première catégorie bi mooy ñan mooy ñi nga xam ne yaakaar nañ ni war nañoo mën a dellu si nguur gi nu mu gën a gaawee te pour ñoom pour ñu mën a dellu si nguur gi nu mu gën a gaawee fokk rek ñu fexe ba Sonko jóge fi comme ça ñu jàkkaarloog Bassirou Diomaye ñoom daal jàpp nañ tànk Sonko ngi Francois fu mu Francois rek mbir mi du du demee noonu ñaareelu catégorie bi mooy ñi nga xam ne jàpp nañ ni li ñu ñàkk ñoom mooy pouvoir bi leen joxoon jox leen ko pour ñu liggéey réew mi ñoom ñu taw di ci noos di ci nguuru sa waxee ñu naan ku aaye wal sa moom xaw ma yu mel ne noonu jàpp nañ ni ñun ñoo leen yàqal seen aaye. moo tax en bi ñuy ñuy dund ñoom en jëmale ko ci ñun du fi jóge ñetteelu catégorie mooy ñoo xam ne dañoo jàpp ni am na ñu ñu bëgg ci réew mi te jàpp nañ ni bu ñu demoon ba wéet ak président Diomaye dina gaaw waaye tant que Sonko ngi fi dina xaw a jafe ñooñu nag xam ngeen fu ñu juumee wallaahi dañu xamul son excellence ay bu ñu xamoon son excellence suñu xamoon seen son excellence dañu xam ni man maay seen jàmm man bëri la loo xam ne son excellence yëkkati na ko fii ma ñëw ne ko monsieur le président ñaan naa la tegal ci suuf rek mu ji keroog daf ma xool ba siàgg mu ne ma koromak ma ne ko mu ne ma yow dama ragal ni gars yi dañ laa atteindre mystiquement bi dama ragal ni dañ laa atteindre mystiquement son excellence le président Bassirou Diomaye du ñeexum ñebe de ay suñ ko xamoon nañu toog di ñaan bés bu bu ne yàlla na fi soog ko yàgg waaye nag weesu nañu foofu fi ñu toll nii ñun dañoo fas yéene jublu ci liggéey bi tàmbali nañ ko bu yàgg sax waaye maa ngi dellu ci doog a ñëw nag ci ñaareelu pàcc bi ñaareelu pàcc bi mooy li taxoon ñu daje fii li taxoon ngeen ma fii mooy lan la ñuy xaar ci peuple sénégalais balaa ma naan lan la ñuy xaar ci jeunesse sénégalaise peuple bi yëpp laa bëgg a waxtaanal gis ngeen politique amul lu ko gën a nopp politique amul lu ko gën a nopp ci yàgg naa wax ni nit mën ngaa bi sa lépp manqué nga dem taxaw jàkkaarloo suñu borom mu seet la nga doon daj ngir sa askan mu ne na jàll loolu man gëm naa ko julli baax na koor baax na aji màkk baax na leneen ak leneen waaye sonn ngir sa askan gëm naa ni amuñu ko gën a noonu moo tax gars yi ñoom affaire politicien la ñuy def politique ñu de ñun nag dañuy politique te nit ñi dinañu xam lan mooy suñu différence ci cadre boobu yàlla jox nañu réew mi ñu ngi ciy liggéey lu mucc ayib réew kenn du ko soppi ci ñaari weer kenn du ko soppi ci juróomi weer kenn du ko soppi sax ci benn mandat waaye xam ngeen lu am solo mooy nga teg les fondamentaux yoo xam ne bis bu ne sénégalais yi ñu gis gis nga teg jéego boo xam ne xam nañ ni ci nga jëm moo yóbbu Sénégal ci progrès développement ci loolu la ñu nekk. ñaar moo mun a am soit ñu def la gars yi doon def mooy bu la yàlla joxee réew soit nga nekk ci benn agenda politicien mooy déjà yaa ngi xalaat élection bi di ñëw yaa ngi xalaat élection bi di ñëw militant yi wër lépp ku nekk naan la mën a mën a jox ma ñoo fi newoon di def lii ñoo fi dajoon lii jox ma jox ma nga topp ci loola waaye loolu weesul juróomi at élection dina ñëw ci juróomi at yi dina am benn élection wala ñaari élection wala ñetti